Miles O'Jamdong, Sambe Pesi, Sherifou et Job Sabrates, Jila, Sabel et Pamadjan. Au platine, DJ Pims de Paris et DJ Dollar. Entrée, fausse 15 000, gradin ainsi VIP Prestige Disponible sur Jumia, en livraison chez Rapidos, chez Saveur d'Asie, Comptoir et e et sur festidakar.com. Sponsor leader orange voilà fidèle internet Wassare célébrité euh, dalee nag jàmm seen biir émission préférée tey nag maa ngi maa ngi fii ci Médina am gan bu mag gam <laughs> bu mat gan sax laay wax euh, taalibe borom Daaru Rahman bi borom Touba muy euh, Tafa Kandji rakk ci Kandji production tey nag ñu fas yéene wax lu ci ci wax ci lu bari ñu fas yéene waxtaan ci loo xamante ni da leen ump ci moom waxtaan ci lu bari daal ndax dañ koy gis ci ci ci ci écran yi mais du ñu xam kii kan mooy rakku Tapha Kandji euh, laataa loolu lañ koy bàyyi mu nuyoog internet yi nuroo nuyoog àdduna Tapha maa ngi lay siyaare. <laughs> waaw man moo mon ay dara maa ngi lay nuyu di la di la jox sa wàccuwaay di nuyu fidèle internet yu wasaare TV di nuyu sa caméraman bi. waaw Adama di ko nuyu bu baax di leen jégalu ci dérangement bi tamit parce que jot amul hmm, mais bàyyi ngeen li ngeen doon def lépp ñëw ndax sama jëmm bu xeebu bi di ñaan réew mi tamit yàlla na fi yàlla def jàmm quoi. Eh, yaakaar naa nu mu dugg see am na solo lool eh, ku dégg muy wax xam ni eh, kilifa bu mag ci réew mi moo wax di di <laughs> taalibe borom daaru Rahman bi dañuy dañuy dugg direct suñu suñu suñu waxtaana ah. dama bëgg nga wax sénégalais yi rek yaay kan dañ lay gis ci écran yi rek du ñu xam gis la ngay ànd Euh, mbër wala dara mais xam ne mbëgg nga présenté wu wax sénégalais yaay kan. <laughs> non benn ndongo laa rek benn taalibi sëñ Touba waaw bu xeebu sax dëkk Touba juddoo Touba précisément dëkk bu ñuy wax ci côté à 4 kilomètres de Touba ñu koy woowee daal Rahman dëkk boo xam ne doomu seriñ at doomu seriñ Touba du moins ñu koy woowee Serigne at bu borom tër bi moom moo ko après bi mu nelawee doomam nekk fa sëñ Cheikh Daa Rahman doonoon sama wasila ma tuddee ko sama taaw bu góor moom tamit euh, mu laaxu ci mois de mars bi may ñaan yàlla na yàlla taas ñu ci barkeem. te yokk leeram. mais sama enfance mën naa la ne la Dakar laa ko defee parce que fii laa jàngee primaire après dem ba secondaire. après xam nga rek affaire baal baal comme gars yi niñ koy waxee soo manee bind facture rek <laughs> yaa ma gën a xam waaw après daal par la xam nga noonu laa évoluer yàlla dogal tamit sama relation ak Boy Niang comme ni ñu koy waxee nii Boy na Boy Niang sama rakk la sama rakk la ñu xamante yàgg na après partage ay moment quoi ay moment yoo xamante ni franchement muy lu neex muy lu naxari parce que boo naa man ak moom dëkk nañ ci benn kër euh, suma ma juumul six ans wala sept ans yoo xamante ni suy bëre ji sax suñu kër lay ngemboo après ngembootul woon pikin suñu kër la doon ngemboo ñu seex ay liens yoo xamante ni franchement ay liens yu fort ñu dem ba mujj gi ñaari famille yi jaxasoo mën naa ne la loolu moo ma dugal ci ay wàcc géewu làmb quoi mais du loo xamante ni sama habitude la woon parce que làmb nag bëggoon naa ko parce que dama ko doon seetaani mais booy ñaa moo ma wàccee ci géewu làmb parce que xaman nga nit am na fu ngeen ni toll foo xamante ni li olof Njaay di wax des fois rek koo xamul na nga koy def nam la def moo tax quoi voilà. waaw wax nga wax nga ko sa biir wax léegi léegi nee nga ba ngeen dalee ànd euh, du tey kañ kañ ngeen seen xamante nu demee. waaw booy ñaa maa ngi ko xamee ci manager am manager am ñu koy wax Père xaan Wade ma koy nuyoo passage mm-hmm. mais avant loolu xam nga maa ngi ko doon suivre parce que ñun sax booy ñaa tëgg nañ ko mu bëre. tëgg nañ ko mu bëree avant boobu maa ngi ko doon suivre bi muy jël euh, billet avion bu ñu tegoon fii stadium Iba Mar Diop mbapat boobu Ndeye Ndiaye Tyson moo ko organisé woon. Mhm. après ma koy suivre gis ko mu nekk xale boo xamante ni un jeune euh, très ambitieux. Mhm. booba doon cumuler jàng mi ak bëre bi mais amoon talent lool soo xamee làmb. booy naa su bëree woon rek da ngay kii bu ko yàlla mayee wér rek dinañ ko dégg quoi après par la suite noonu la kii parce que xam nga yàlla mooy def. nga gis nit nii rek bëgg ko loolu yàlla moo koy def quoi après nag par la suite suñu combat bi ñu ko tëggoon mu ko doon bëri ak benn mbër bu nekk école lit Balla Gaye ñu koy a Akon Fallou nga xam ne ñoo ko tegoon ndeysaan après par la suite ci laay waxtaan ak manager am moom per Père Bourkhane di waxtaan di wax après ba per Père xaan nag mettre ñu en rapport quoi après ñuy commencé di déggante affaire yooyu après suñu relation foofu la juddoo. Mhm. mais ñu gis ni yaa ko yoral léppam <laughs> bu waree sëgg sax yaay yaay yaay yaay yaay sotti gàllaaj yaay yaay yaay nit buy mujjee ci géew bi noonu nu mu demee noonu confiance boobu noonu ak làmb nu mu demee. non c'est pas parce que sax maa yi ngemb du maa koy ngemb sax xam nga <laughs> waaw du maa koy ngemb comme mais. mais gàllaaj gi yaa ko yor. bokk naa ci nii rek xam nga man daal genre kii laa daal yaa ma gën xam daal genre complément la rek mhm. mais confiance boobu ci ni mu ñëwee mooy comme li ma la wax xam nga nit su fekkente ne. dafa am fu ngeen tàmbalee ngeen am fu ngeen jaar dëkk six ans sept ans xam lool loolu du caaxaan comme ni nga ko waxee tamit dëgg la làmb du ay caaxaan gis nga mbër saa demee ba wóolu la da ngay jël bitel di ko sotti rek sa parce que yow moom amatoo ci moom frontière quoi mais booy ñaa dëgg la làmb moo ñu boole moo tax ñu xamante mais après dañu dem ba suñu relation dépassé cadre lamb quoi dem ba o delà làmb mhm. ñoo bokk ndey ak sama rakk la wax naa la ko ci sama début wax après loolu moo tax euh, confiance boobu ndeysaan je me rappelle sama premier jour bu bi nga xamante ni ci laa koy njëkk a sotti gàllaaj ndeysaan benn euh, magam boo xamante ni gaañu na sax sama xarit la woon Cheikh Fall mhm. mook boo ñaa ñoo bokk benn yaay yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana Cheikh euh, fekk combat booy ñaa ak dolf la woon fekk ma jëli woon sama biteel gàllaaj ñëw rek yor tam nga ñu dugg ci làmb ji affaire yooyu rek ma jël sotti ko booy ñaa après làmb ji jeex quoi ñu toog di waxtaanaa di résumé combat yi man booy ñaa ak Cheikh quoi ak Cheikh jékki-jékki na ma tafaa am na benn am na benn butéel ma la gisoon quoi nga koy sotti booy ñaa te bokkul ci suñ gàllaaj foo ko jëlee rek booy ñaa intervenir na ko noo Cheikh kii moom kii moom xam nga dugaluma kenn suñu diggante quoi mhm. moom ak lu mu mënti indi ak lu mu mënti yor su ma ko joxee ni ma ko waxee laa koy defee te du ma sax hésité kii moom bu kenn dugg suñu diggante affaire yooyu confiance bi noonu la commencé ba nga xamante ni léegi franchement xam naa ne yoraluma ko lépp mais bokk naa daal ci ñi nga xamante ni ñoo ko yor daal. non loolu moom leer na Sénégalais yi yoraloo ko lépp mais euh, lu ci ëpp yaa ko yor. ba ba ba dernier combat bii moom Lac de Guiers gis nañ ñi ngay bale géew gi bale boobu lan la balewu lan la loolu. <laughs> <laughs> bale bi gars bi ñuy ñëw ci yoon bi xam nga rek folklore bi lañ ko romb nii rek romb comme ci marché bi lañ jaaroon marché Pikine gars yi romb bale rek ñu ne waaye nañ jënd bale buñ demee def ay folklore ay folklore la nag mais xam nga yooyu mooy loolu. làmb laa lay wax de <laughs> bale yooyu du bale folklore ak yooyu noonu bale boobu noonu da ngeen bale tàgg waa ji mu bañ a mën a bëree wala nu mu demee noonu. Hmm, du loolu du loolu non comme li rek ay folklore et xam nga ñun tamit bu ñuy dem làmb dañuy jox ay directives rek paa yi ku ci mel ni papaam Pierre de Gaulle moom tamit maa ngi koy nuyu waa maa ngi koy nuyu di ko ziar baax suñ papa bu baax moom tamit ku wàccee boppam di nuyu maire amaana tamit di nuyu soxnaam moom tamit Ndeye Marie vraiment jigéen ju baax suñ jeeg boobu nga xamante ni jigéedewuñu benn yoon. Mm-hmm. mais yooyu ay kii la daal xam nga rek parce que lamb moom ay dara bu la ci kenn tane làmb làmb moom li ko yor lu la waay mën di wax lu dul entraînement. Mm-hmm. non dalay nax. lamb moom quatre vingt dix neuf pour cent entraînement la yeneen yi nga gis na comme li nga wax ay bale yi ay fas yi ngay takk yooyu cinq pour cent la rek ay complément la ay muslaay mais lii taxa daan dëgg mbër moom yow yaa koy indi yow yaa koy liggéey moom waaw loolu moom bu la ci kenn tane. d'accord mais mais euh, ñu gis ni naxatoot sax seen seen combat bi passé ñëpp di xaar. ndamu du ma la ko nëbb sénégalais yëpp foogoon nañ mooy daan mhm. mu ñëw mu demee neneen mhm. ñu gis ko bi ku nekk taxaw di xaar euh, nu mu demee noonu lu tax ngeen yabee booy bi noonu non c'est que xam nga làmb comme des fois ni ma dégg Maxime di ko wax làmb ñaari ndam ñooy dugg mais benn mooy génn mhm. mais xam nga jour boobu keroog ku ñëw arène national nga gis Boy Niang ni mu li mu mobiliser parce que tamit xam nga nit dafa am loo xamante ni yow yaa koy moom am loo xamante ni dafa am ñu koy moom ci yow Boy Niang nee na arène nationale da koy muslu. non da koy muslu keroog arène nationale dañ koo dóor ba mu tëdd. léegi nag xam mbooloo bu toll noonu mënul topp sa ginnaaw ñu préparer làmb mois yu toll noonu. après nga ñëw bëgg a bazarder sa làmb ba pare nag muy bëreeg adversaire boo xamante ni man samay interview waxoon naa ko c'est un adversaire boo xamante ni man dama ko respecté. trop vu son parcours ci làmb. parce que buñ ne làmb daan nga Yaxya Joob Yékini. Mhm. ñu ne daan nga Moustapha Guèye loolu rek palmarès la quoi xam nga carnet waaw carnet d'adresse boobu dafa riche mu doon mbër moo xamante ni waxoon naa ne ne bokk na ci wala moo gën a naxaree bëreel ci làmb ji mhm. et puis Boy te yàlla xam na ne noonu mu bëree noonu moom du noonu la bëggoon bëree booy ah, Boy Niang Boy Niang dafa jëloon initiative moom bu arbitre sifflé mu baatare combat bi ci cinq minutes mais nag comme li la dafa am ñu topp ci ginnaawam ñoo xamante ni am na foo xam ne bu ñu fa toll ñoo koy wax defal li ñoo ko wax ne ko mu aborder combat bi noonu te làmb li ko gën a yàggal mooy loo xamante ni dañ ko nëbb mooy Boy Niang daf ci tooy ay quinze jours mhm. mën naa ne gis nga vingt cinq derniers jours yi des ci làmb ji quinze jours yëpp Boy Niang daf ko tëdd yàlla xam na ko billaahi walaay dafa tawat dafa tooy parce que yéen a ngi koy soog a génne de. non barke Sëñ du ma la wax nii du ma wax nii rek pour wax quoi. parce que loolu de wasaare ko am exclusif. barke alxuraan moom booy naa xam mosoo dégg sax mu wax ko duñ ci sax wax mais wallaahi azim 15 jours 25 jours bi desee islam ji yëpp booy naa daf ko tëdd tooy. Mhm. jugul sax exemple daw lu toll ni fii ak réussite dafa tëdd rek. parce que boobu xam naa ak voyage yi xam nga entraînement yi métti na mhm. mais comme làmb ji bon ñëw na te xam nga am na loo xamante ni tamit kenn du ci yàq bi su jàmbur. Mhm. loolu moo tax après ci biir combat ñu dem ba ci yàgg ñu xaw a sentir peut-être benn fatigue ci ci Boy Niang quoi. Mm-hmm. mais yoo xam nga ne Boy Niang mu pare rek pare pare sur tous les plans ñëw taxaw non laajal Sa Thiès waaw <laughs> mel ni euh, Sa Thiès da ko da ngeen ko tax a sàddi fële. non Sa Thiès. ndeysaan maa ngi koy nuyu moom tamit. moom tamit c'est un très grand champion nag mbër mu mbër mu am avenir ci lamb la moom tamit mais Sa problème bi amoon ak Sa mooy Sa man j'avais l'impression que ne Sa xamul booy Niang wala Sa dafa sous-estimé yoon booy Niang mm-hmm. moo tax làmb jooju musuma ci am musuma ci am xel ñaar quoi parce que dama xam ne kii ñaar am na ci moom mooy xamul Boy Niang wala da koy sous-estimé te Boy Niang kuy bëreeg moom ñaar yooyu benn dal la ci rek amoo chance ci booy Niang parce que Sa Thiès euh, ni mu doon waxee ak Boy Niang dama ne kii peut-être dafa jàpp ne benn xale buñ ko jox këram rek mu yar ko daal moom la war a bëreel daal te fekk na ñun parce que <laughs> dama lay jox benn anecdote mhm. Siteu la Sa Thiès bëreel maa nag sama benn copain bu ñuy wax Bas Sakho moom tamit maa ngi koy nuyu ñu jugee stade quoi ànd ci oto Bas dafa bëgg Sa ak Balla ñuy werante ñuy werante rek Bas jékki-jékki ne ma yow sa wax bi. yow li ngay wax xam naa fi nga jëm sa mbër bee tax ngay wax mais sa mbër bee booy yëpp Sa sa leen mën bas fu muy daanalee rek booy ñaa ma téléphone ci biir oto bi rek ma def booy ñaa au ne bas noppil quoi booy ñaa ñu nuyoonte saafonte après mu laaj ma esaan nga jógee mu ne ko après mu ne ma mais Sa ñi muy daanee mbër yi dafa yomb man ma ne ko noo yombul mais Sa Thiès daf leen ëpp doole booy ñaa ne ma mbër est-ce xam nga Sa Thiès maa gaaw ci moom. daa di reetaan man tamit ma ree mu ne ma li ma lay wax peut-être yow gëmoo ko mais mu ne ma billaahi Sa Thiès bu suñu combat taxawee bo arbitre sifflé ma daan ko ba ñibbi Pikine te du ko xam. Eh. waaw ne ma damaa gaaw ci moom te xam naa lu tax ma wax lool Sa Thiès dañ ko étudier et puis xam nga combat boobu gars yi dañ ko yàggoon tox. Eh. mais boo gisee ñaari camps yi lu tax sawaruñ ci woon mooy période boobu xam nga mbër des fois yéen ñaar di ngeen bokkandoo di ngeen bokk génération dugg ci làmb ñu ne bëreet ñu ne Aïdara ak Tafa Kandji mais ci période boobu genre su fekkente ne dix mille la combat bi di jar su ngeen maintenir làmb ji ba ngeen dem exemple ay trois ans quatre ans mën nañ dem ba ñu fay leen kenn ku ci nekk cent mille. Hmm. parce que ñaari espoir ñaari génération ngeen di doon yoo xamante ni bu ngeen guddee fan yéen ñaar ala kulli leen il faut ngeen dem ba daje ci benn porte. boo xamante ni kii dafa war a dugg kii kii war a xaar looloo taxoon combat boobu ñaar ci côté ñaari camp yëpp ñu ko doon toog surtout nag ñun suñu côté côté Boy Niang mais les gens n'avaient pas compris gars yi ñu si bëri dañ yaakaaroon Boy ragal Sa Thiès moo tax mu ko doon teggi alors que doonul woon ragal mais combat bi moo jotagul woon. dafa doon jàng waaw waaw et puis moo ñëwul woon daal ci période boobu parce que période boobu ñoom li ñu fayeeku ci seen combat bi mujj su fekkee ne woon période boobu lañ ko bëree woon non loolu mënuñu am sax kaar bi quoi. d' accord yaakaar naa ni euh, côté boobu leer na mais ngeen ngeen bëree contre Lac de Guiers ñu joxe match ci biir stade bi. Mhm. toog ay jour ñu ne da ngeen perte. noo leen ko doon kiiwee dundee. waaw xam nga sport nag il faut ngam xam nga li ñuy wax euh, esprit fair play loolu dafa baax quoi ci sportif parce que nit tamit su fekkente ne yàlla da may ngay bëre di daan xam nga li ma di daan ay nit ñoo xamante ni ñoom tamit dañuy ànd ak seen mbokk am comme li nga am mais yàlla may la nga am dam seen kaw buñ demee ba bëre làmb ju tool noonu verdict génnul ci combat bi ñu dem ba 15 jours après ñu génnee verdict par recours CNG wax ne Boy Niang daanu na par quatre appuis non dañuy gën a continuer rek sant yàlla xam ne sport la moom sport da ngay gagné wala ñu gagné la wala ngeen match nii ñett yooyu moo ci am quoi. te boo yoree soo nekkee sportif tamit il faut nga am esprit boobu noonu la. ngeen jógee ci combat boobu noonu. Euh, foog ñu foog ne da ngeen di wàccaat mais mu gën leen relancer ñu ne da ngeen di desandi géejawaay ba tey Balla Gaye ngeen toppee Balla Gaye Mboro nu mu demee noonu man Balla ngeen sës ko nii di ko rëq pour lan. non mais Balla Gaye toppuñ ko de. non ko topp de àdduna bi yëpp ñu naan booy booy ñaa Balla Gaye. que nag fi mu ne nii làmb xam nga làmb ay dara moo dem. ma tuuti rek di ziare waa wasaare làmb yëpp ñoo ñu ñoo ñoo waroon sax kii lii mais magam Tafa Kañ Kañ eh, magam Kañ production di ngeen ko am ngeen waxtaan ak moom ci làmb ji kii célébrité la maa ngi ziare ñëpp Basirou Djili ak Ousseyn maa leen di ziare jaa ngeen jëf yéen. non xam nga làmb ay dara mooy dem ba toll foo xamante ni il faut ñu am lu ñu def parce que gis nga lambo olof yi mag ñi dañuy faral di wax na garab ci kaw lay fekkante quoi xam nga Balla Gaye numéro 2 maa ngi koy nuyu moom tamit c'est un très grand champion. bàyyi mbër yi ngay bàpp. non non barki la champion la xam nga Balla tey boo taxawee wax ci Balla leneen lu dul champion la rek nit ñi lay seetaan dinañ la jéppi wala ñu xeeb la. c'est un très grand champion parcours bi mu def ci làmb ñëw maanaam Balla Gaye su ma la doon wax. dama lay wax ne c'est un lutteur boo xamante ni dafa abrégé dafa abrégé parcours parce que yaakaar naa sept ans la bëri rek doon roi des arènes loolu yaakaar naa amul ci làmb talent moo ko may jàmbaaram te nit ku baax la man miinu ma ko mais à travers ces gestes damay dégg nit ñi di wax ne vraiment borom xol bu rafet la maa ngi koy nuyu mais. Balla pour mu agsi fii mu agsi seeni mag dañ leen mayoon chance. Mhm. Balla Gaye bi muy bëreeg Moustapha Gueye xam nañ ne Tafa daf ko may chance. Mhm. Yaxya Joob Yékini quoi qu'on puisse dire bu fekkente ne Balla dafa bëre ba àgg fa sax mais Yékini boobu su ko neexoon du bëre ak Balla mën na bëre ñeneen ba ni mu bàyyee làmb léegi nag làmb ji actuellement ci ni mu tëddee làmb ji mënatul tourner autour de ay quatre personnes cinq personnes parce que xale yi màgg nañ booy ñaa làmb kenn mënul jeexal say moroom mm-hmm. amul benn mbër gis nga Yaxya Joob Yékini mhm. bi mu reñee ba yaakaar ne day dem te kenn du ko daan Balla moo ñëw daan ko mhm. Balla Gaye bii tamit bi muy nekk roi des arènes Eumeu Sène daan na ko làmb kenn du jeexal sa booy mhm. Boy buñ ne la booy Niang dafa daan Saaka Joor daan Lees de daan Guy gi daan Garga Mbossé daan Sa sawaay kooku te Balla Gaye <laughs> bu bi ñuy bëreeg Sa booba ñun Balla Gaye comme li nga wax Balla Gaye lañ parce que tamit nit il faut être ambitieux dans la vie ah borom bitt bu mbagg boo xar xol ba magasin nga koy fekk tamit mun a faa. Balla bi ñuy jël Sa Thiès gars mom moom lañ doon wax. Balla Gaye moo jël avance bi bi Sa Thiès daanee nees. ñu daan ne ñu daana Sa Thiès Balla après combat mu Modou Lo taxaw après ñu jëli la de après li ci xew-xew ci amateur ak euh, ñi nga xamante ni ñooy promoteurs yi di bailleurs yi ñu ne pourquoi pas ñu def grand contre parce que loolu rek moo mën a sauver lamb parce que ñun ñëpp xam nañ ne actuellement lamb ji vraiment sooxe na te xam nga lamb ji mënatul tourner autour de Eumeu Sène Modou Lo Balla Gaye Gris wala Bombardier wala Tapha Tine booy yi tamit màgg nañ def nañ seeni preuve ku ci mel ni ay Ama Baldé ku ci mel ni ay Boy Niang mi sa waay grand yi dañoo war a jox loxo tamit seen rakk parce que booy yi tamit dañoo prouver ba agsi ci ñoom ba nekk ci bunt bi ci antichambre bi c'est pas parce que booy yi dañ leen bëgg a brûler ay étapes mais ay booy ñaa booy ñaa def na ci làmb lu tax mu war a mën a bëre ak Balla Gaye bien vrai que magam la Balla lim fi def dëgg la c'est bien beau nekk na roi des arènes mais garab tamit ci kaw lay fekkante de sa waay. loolu la Yékini waxoon de. Ah, waaw garab ci kaw lay fekkante moom daal làmb moom soo mënee nit làmb yow ay dara bu fekkente ne dañuy bëre ma ak yow mu mën la dama lay jël corriger la. tegee la fële jàll ci leneen. yow ku dégg ku dégg xam na ni euh, booy ñaa nga nekkal moo tax ngay wax lii bëgg combat bi taxaw moo tax da ngeen yàkkamti instant yi combat bi. <laughs> ah déggoo Balla Gaye ñu seeti ko mu ne buñ ko fayee xaalis bu bëri ba Balla Gaye moom tamit bëgg na ko bi di làmb mooy sa métier nga xëy di entraîner. su leen fayee ñaar ngeen jël. ñun. Hmm. ñun même buñ ñu fayul sax baax na. Ah, wax ji mooy lan. ah ñun nañ ñu seet rek. <laughs> wax ji wax ji am na mu jëm <laughs> non mais xam nga bëreeg Balla Gaye tamit c'est pas donné à n'importe qui tamit bëreeg Balla Gaye c'est pas donné à n'importe qui mais ñun moom ku ñuy seet si ñun waxal ak Balla ba juboo boo juboo ak Balla Gaye ba pare boo ñëwee ci kër gi moom doo fa génn te juboo woo ñu loolu moom ça sur sûr kese moom duñu tàqale ak promoteur bu bëgg combat booy ñaa Balla Gaye